voilà c'est euh, na euh, ko daal di jàngatee. waaw yooyu yëpp si la vraiment c'est c'est les conséquences de son comportement euh, par rapport à l'affaire euh, Adji Sarr Ousmane Sonko parce que foofu yëpp gis nañ hmm. li fa amoon ci wàllum yoon ci wàllum doxalin Ismaïla Madior Fall à un moment donné tu vois véritablement ni mu doon gestionner et euh, véritablement le service du, du ministère euh, public vraiment c'était c'était c'était c'était dafa ñaaw c'était honte quand même parce que surtout ci affaire contumace ba contumace théorisé na fu nek Ousmane Sonko est un contumace tu as vu alors que véritablement loi bi waxul lolu donc bari na politique non dafa politique parce que gis nañ bu de heure bu demé Tëngéej gis nañ ko fi ba muy jaay ay carte tu as vu xam nga di défendre lo xamanteni même boy politique aussi ñu dénk le ministère bu toll ni justice même boy politique fàllu tégal mbir mi si yoon tam kamer ken waxu la bul politique mais tégal mbir mi si yoon justice lañ la dem nañ ba Sénégal ñaari justice pratiquement moo fi am lan lañ lan la lan la juri Sénégal. Hmm. justice populaire dañu dem ba askan wi ñooy defal seen bopp justice. justice bi confiance bi Sénégalais yi ñàkk ci justice bi yëpp ci nguur ci euh, magistère u euh, euh, Ismaïla Madior Fall la jógee y a beaucoup de choses anomalies keroog bi ñi nga xamante ni assemblée nationale dugal nañ loi loi pour repousser les élections da nga dis kii bi mu ci wax mu ne euh, euh, le conseil constitutionnel amul amul habilité amul droit wu euh, mën gankal loi bi finalement gis conseil constitutionnel dafa ñëw gantal ko kon nga xamni ni na lu muy wax aussi si wàllum yoon véritablement da ngay gis ni l'histoire de plus en plus ñuy dem daf koy démentir maintenant c'est les conséquences de son comportement aujourd'hui mom moko dal motax nguur encore une fois aussi buñ ñu la dénkee poste ministériel wala nga nek président de la république aussi waroo surtout nga nek ministre wala député waroo di xool rek bëggi-bëggi ki nga jàpp ni aujourd'hui moo tax nga doon li nga mm. doon parce que dañ la ko jox pour nga dawal équité ak déontologie maintenant déontologie boobu nga xam moom daf ko yàgg incarné ci université yi nit ñi naw ko xam-xamam dara jaam fépp ci àdduna bi ba def ko ministre de la justice pour que man éthique boobu ak déontologie boobu aujourd'hui waru woon bàyyi muy naxsaay maintenant tey bu ñu demee ba parce que li nga wax c'est la réalité parce que IFAN aussi pour ñu mën ko accepter aussi pour mu mën fa ñëw aussi ñooñu il faut nga am ñu joxe seen consentement également. est-ce que yaa ngi recteur bi xam nga ñu bëri dañ ni daf ko bëgg euh, affecte ko bëgg a affecté. te te wul euh, loi bi. loi bi su des génn. waaw mais problème bi mooy. Hmm. xam nga affecté gu ko dafa nekk ci processus bi. ci processus bi waaw mais ñu ngi ci processus bi ñu ngi ci processus bi lañ ne de xam nga affectation tollooguñ ci affectation. Hmm. parce que balaa ñuy affectation da jugee point A B hmm. C D.

ba muy nekk agrégé xamut est-ce que xam na Macky Sall en réalité c'est ça donc ñu lay def loolu loo xamante ni. donc poussière Ousmane Sonko bi yóbbaale na ko jamono ji. ah mais da koy yóbbaale parce que mooy li ma la wax ci. Euh, procureur kii Alioune Badara kii le procureur la euh, Alioune Ndao. al non non pas Alioune Ndao. Hmm? le procureur récent procureur bi génnoon tur bi damay fàtte seen tur yi tur bari sama bopp yi. Okay, nous le fameux procureur là, qui était chargé de l'affaire Ousmane Sonko Adjissar. Si, si, si. Bassirou Gueye Bassirou Gueye. Ouais, Bassirou Gueye, j'ai oublié son nom. Ah. Madame, Warlani, que ce soit Moui, Moui Bassirou Gueye, que ce soit Moui Moussa Fall, que ce soit Moui Ismaël Major Fall, dama ne la ñooñu dafa am lu régime bi warloo ak ñoom. Hmm. dafa am lu régime bi warloo ak ñoom Moussa Fall xam nga waxoon naa la ni duñ dañ ko dañ dinañ ko fa jëlee. Hmm. Bassirou Gueye nee naa la di nga parce que mënatuñ mënuñu ko parce que dafa am aussi. Ah, et ça a été véritablement flagrant aux yeux des Sénégalais. Hmm. tu as vu aujourd'hui l'histoire l'affaire Ismaël Madior Fall doit nous apprendre beaucoup de choses. Hmm. alors euh, ñu ñëw exactement si euh, euh, ba professeur Ismaël Madior Fall il précise exactement. Euh, la communication euh, euh porte-parole directeur, recteur UCAD de à modi xam professeur euh, mais Thiam donne éclair exactement si avez des questions il n'a xam quelques précisions à la dernière minute donc information daf comme après avoir formé une cinquantaine de euh, docteurs et des professeurs agrégés présidé le concours d'agrégation de droit publics du commerce et cumulé et accumulé une expérience le euh, une expérience gouvernementale décennale j'ai considéré que euh, de retour à l'université, euh, je serai plus utile à la communauté universitaire en dirigeant euh, des recherches sur divers sujets portant sur les politiques publiques et la gouvernance plutôt que de donner des enseignements sur les disciples classiques que les professeurs que j'ai formés assurent de manière remarquable. Mes activités d'enseignement à la euh, FSGP euh, pourrait alors se limiter à ce qui souhaitent euh, que je complète par des conférences de méthode et des cours sur des aspects pratiques non abordés par les enseignements théoriques Manu qui kon Ismail Majofal xam encore une fois que ni les syndicalistes du Sud-Est qui ont écrit ce communiqué fustigeant ma démarche sont ou ignorant des règles qui régissent le statut des enseignants-chercheurs ou de mauvaise foi, le recteur ne peut pas et ne veut pas euh, m'affecter, priori, euh, à l'IFON, euh, il ne peut que soumettre ma demande aux instances délibérantes des deux institutions. La fac donne un avis favorable. L'IFON, de même que les syndicalistes, ne peuvent pas s'y opposer. En cas de divergence d'avis, je m'acquitte de ma charge de professeur titulaire euh, de classe exceptionnelle d'une demi-journée par semaine et j'ai tout mon temps libre à moi. qui n'a xam que moo di euh, Ismaïla mais Fall mi à la dernière minute en ce qui concerne justement euh, son affectation à IFAN mon nee na li nga xam ne itam jaar na ko ay professeur professeurs tes professeurs franchement te itam xamna exactement ak action gouvernementale parce que yàgg na euh, si gouvernement yi yor na fi poste gouvernement bu nek et d'autres et en d'autres jot na tey euh, reculer un peu du ci classe yi dem di animer ay conférence pourquoi pas sax mu daal di amal li nga que mo justement yenn ci ay euh, panel allant dans ce sens daal di gën a war ndaw ñu droit mais dafa si tënk dal niveau dépasse na salle de classe yi et que CUDES bi ko doon xéxal que ni amuñ droit daal di koy affecté jàpp ni mauvaise foi leen andal parce que jamono ji kenn mënul opposé wu par rapport ak demande bi nga xam ne soumettre na pour la dem fa nga xam ni itam mooy zone euh, d'après Ismaël Madior ah, Fall. waaw il se justifie. Hmm. oui il se clarifie. naka don xéxal oui il se clarifie par rapport ak débat bi nga xamante aujourd'hui agité na l'espace public bi oui c'est ça. Hmm. il se justifie en tout cas tàgg na boppam ah plus d'une cinquantaine de ah. docteurs. non et les professeurs en tout cas euh, il n'est pas n'importe qui hein donc nous donc nous changer un peu. donc lui c'est à sa demande. donc il sanction. a sanction. Hmm. oui. alors. Ah, euh, si n'y a wax d'après sanctions mu wax nag waaw <laughs> ah, li wax ah wax xëy peut-être. mais man sur le plan politique sanction sanctions <laughs> c'est jàppee. analyser par rapport à euh, la démission de Yannis ay exactement Ousmane Sonko démission a démissionné.